ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2024 moo nara nekk bisub dëgg bi ñuy amal élection présidentielle bi ñu dëgmaa la Sénégalais yi nar a tànn seenum njiit ci juróomi at yi ñu dëgmaa la mu des diirub at daanaka ña nga xam ni bëgg nañu nekk président ñu ngi tekk jéego jëm ci loole muy ci parti yi nga xam ni nekk nañ ci mouvance présidentielle waaye itam ci kujje gi naka noonu ci société civile ci côté pouvoir bi ñaari candidat fësal nañ seen yéene mu di APR ak réew mi kuréel yi ci mel ni parti socialiste AFP ak ñi nga xam ni ñoom lañ duppee les partis de gauche la ñu bëgg ci coalition benn Bokk Yaakaar moo dañ waxtaanee lu ñu mel ba ñu am benn candidat ca beneen boor ba di kujje gi dañoo taamu sàmmonteek li nga xam ni moo di bëgg-bëggu ku ne loolee lañ nemmeeku ci yeewi askan wi daanaka chef de partie bu nekk daal dina déclaré candidature am ci élection bi ñu dëgmal mu di Ousmane Sonko xalifa Babacar Sall Malick Gakou Déthié Fall ak Serigne Moustapha Sy ci coalition wàllu Sénégal Aar Sénégal Gelwaar candidature bu Karim Wade bu Abdourahmane Diouf bu Babacar Diop ak bu Thierno Alassane Sall daanaka seeni partie ñoo ko daal di bëgg mën nañ nemeeku itam ñeneen ñoo xam ni bëgg nañ bokk ci rawante gi mu di Boubacar Kabara ak Aminata Touré mu di ab xeex boo xam ni sumb nañ ko ba noppi di fësal yéene yu fasantikoo ngir jiite Sénégal waaye itam ngir mën a natt doole seeni parti mu di loo xam ni am na solo lool ci démocratie am réew waaye donte ni am na ñoo xam ni fësal nañ seen i bëgg-bëgg mu jiite réewum Sénégal dara am ñoo xam ni danañ bàyyi laataa ñu yegg ca jongante ga. muy ñi nga xam ni mënuñoo defar ab équipe de campagne bu am doole rax ci dolli amuñu koppar gu doy gu mën a def campagne ñoom ñoomee ñu passé campagne présidentielle ca wet ga dina am ñeneen ñoo xam ni itam dinañ négocier ak ñoo xam ni ñoo leen ëpp doole ci wàllum politique waaye itam ci wàllum koppara ndoorteelu campagne présidentielle bi le mooy jëmal ñaareelu jéego jëm ci xeex bu mujj ba mu di jongante présidentielle bu 25 février 2024